mbokk mu ñu doon laaj léegi yenn ci njariñ yi nga xam ne Serigne Touba indi na ko bu dee yooyu nag daa yaatu lool daa bari lool am na ci yoo xam ne da koo dugal ci ay téere lu mel ni Majmahun Nurayni am ci yoo xam ne da koo ber am na ci boo xam ne sax da koo beral téere boppam tudde ko Fathul Wahhab waaw ñu ko tuddee Fathul Wahaabil fii bismillahi rahmaani rahim daa am taalibe bu tudd Ibrahim moo ko doon laaj ay laaj yu jëm ci bismillahi rahmaani rahim sëñ bi tontu ko ci tontu yu yaatu yu am njariñ lool yoo xam ne daa làmboo njariñul adduna ak àllaaxira tudde ko noonu nag Fathul Wahaab téere nag daa yaatu lool waaye tontu yi bi ñu bëgg a tontu mbokk ci lañ koy. Eh, sukkandikoo incha allah moom lañ koy leeralal rek mu jàpp lim ci wax lépp bu ko defee nag moom dañ koy jël ay yoon yoon yoon ndax daa yaatu lool sëñ bi sax ndénkaan bi na rahim ak yenn ci ay secret yi mu amee hmm. dora ñëw nag ci jagle yi nga xam ne nag rahim amee na ko man nga njëkk a jàpp bii mu njëkk a wax ne bokk na ci njariñul bismillahi rahmaani rahim koo xam ne tudd na ko lu bari dana koy tudd lu bari ci ci aajo ju mën a doon rawante nag mu nekk aajo yi wàllu wërsëg ñoddik wërsëg dene day yàlla dana ko defal wërsëg woo ci anam gu yomb ci anam goo xam ne sax du ko foogee dana ko defalit ak wegu ci xoli nit ñi nit ñëpp nag yàlla da ko defal ak wegu ñu bëgg ko mooy wa amma xawaasuha fa minha anna man dakaraha kathiran fi ay xaajatin kaanat xusuusan fi jalbi al arzaq رزقه الله تعالى باليسرى من حيث لا يحتسب ويرزقه الهيبة في قلوب الناس وعند العالم العلوي والسفلي nee na bokk na ci jagle yooyu bismillahi rahmaani rahim amee koo xam ne ma ngay bëgg a tëdd di nelaw guddi jàng ko ñaar fukki yoon ak benn dana mucc ci seytaane dana mucc ci ayu nit ak jinne dana mucc ci sàcc ak ak lakk ak déggu metteel te suñ borom dana ko fegal lépp luy musiba ak lépp luy gàkk-gàkk wa minha anna man qara'aha inda nawmi ihda wa ishrina marra amina fi tilka layla min asheytaani rajim wa min charri al insi wal jinni wa sariqa wal xariq wa min mawti al faj'a wa yadfau anhu kulla bala'in wa afa neena bokku na ci jagle yooyu koo xam ne jàng na ko ñeen fukki yoon ak benn ci nopp koo xam ne daa dof daa wéradi wéradi xel ba mu daanu ay rab ba tàggook sagoom yàlla dana ko delloo si am xelam ci saase quarante nga koy jàng ci am noppam rek am xelam daa dellu daa dellu si ci moom wa minha anna man qara'aha ihda wa arbaina ala udni majnunin aw masruin rudda ilayhi xaqluhu wa fi saa'atihi nee na bokk na ci njariñul bisimillahi rahmaani rahim yi su fekkee da ngaa jàkkaarloo koo xam ne ab tooñkat la baa ku am doole ku jiite koo xam ne daa jëng ragalul yàlla mën a tooñ nga ragal ne kat mën na laa lor boo jàngee juróom fukki bisimillahi rahmaani rahim yàlla dana la ko xalal suufeel ko def tiitaange ci xolam ba du la ñeme daal def ci sa xol yow yow mi ko jàng ak wegu ba mu ragal la lool nga daal di mucc ci aw ayam sëriñ bi nee na rahim des na ko ngir baaw naan maanaam de bekkoor daa am mu gëj a taw des na ko jàng ngir sàkku ci mu ab taw des ko jàng nag bu boobaa dañ koy jang juróom-ñaar fukki yoon ak benn cent onze ànd ceeg nag yéene ju sell ya barab boo ko rek na fa wàcc ndox moo tax wa minha lil istisqa tuqraw ixda wa sabina marra bi niyatin xaalisa fi ay mawdiin kaan nee na it bismillahi rahmaani rahim ku ko jàng ci aw foo xam ne day ci saw yaram baa nga jàng ko jàngal ko koo xam dañ ko njabar maanaam kuñ njabar rek mu jàng ko juróom-ñaari yoon yu toftaloo ci saase ba sax dina mën na ko ëpp bu la neexee nga jàng lu ëpp juróom-ñaari yoon moo tax mu indi aw ziyaada yàlla dana deñal njabar njabar bu dee njabar la dana ko deñal bu dee mettit la dana saafara mettit la kon daal nee na bisimillahi rahmaani rahim ko amee aw mettit mbaa ku ñu njabar ko jàngee juróom-ñaari yoon yu toftaloo mbaa mu ëpp ko sax yàlla dana dindi njabar ga bu dee mettit la yàlla saafara mettit la wa minha anna man qara'aha mi'ata marratin ala waj'in min al aw ala mashxuur سبعة أيام متواليات أو زيادة أزال الله تعالى ذلك السحر والوجع عنه كون تي دنكو يمالي فوفرك با الجمعة بدلسي إن شاء الله نيو أغل فتح الوهابيني دا نيب مانا جارينيو دا لامبوناك جارينيو أدونا أجلو الآخرة نمي يعني يالا جارينيو تي تي باركب سورين توبا Thank Every